Assalamualaikum Bok internet dalen ak jaamu Sen 220 ans dañu koy tambalé ak ki di pap Alassane Gueye ak ka di nga xamné yëkëti nako jëmé ko amon ci gañu gañu bi nga xamné amon nako taxone Sénégal yu bari amon ñakkar ci mom ndax kat li nga xamné moy entraînement yi doon amal dembu dako wuté wuute dara indi ko luddul amon blessure bi nga xamné amon nako ci match bi ñu doon am suñu digënté guiné bu nga xamné nak gañu gañu ba li tax mu daldi di génn ci match ba daf doon ragal mu gëna moom sax moo dal di laaj ki nga xam ne mooy coach bi ngir mu dal di koy remplacer génnee ko maanaam ci match bi fi mu nii nag nee na mu ngi am feex bu baax mu ngi am tan waaye nag waxul ne wér na nee na daal jàpp na ne bés yi di ñëw moom dina gën am tane loolu la xam ne moom kii di Pape Alassane Gueye ñu jàpp ne xëy na balaa ñu yegg ci match boobu ñu war a am suñu diggante Côte d'Ivoire dina war a wér ndax kat dañu ko soxla lool dafa bokk ci tiro yi nga xam ne dañ ci mën a gis suñu bopp muy tiro bii ñu leen di wax muy Pape Matar Sarr Lamine Camara ak Pape Gueye kon nag kenn ci bu ko wuutee rek yëf yi mën na feeñ moo tax jàpp nañ ne xëy dina wér waaye li mu xam ne daal mooy fi mu ne nii mu ngi am tane bu baax te gëm na ne dina gën wér ci bés yi ñu dëgmal moom nag daal dinay wax tam ci match bi nga xam ne ñii di waa Sénégal war nañ ko am suñu diggante Côte d'Ivoire mu ne nag équipe bu mag moom mënoo ko moytu bu fekkente ne da nga bëgg a gañe dara rawatina compétition bu mel ni CAN mu ne foog nga jaar ci équipe yu mag yi lu mënta ñàkk la voilà même bu fekkonte woon ne daluñ ci Côte d'Ivoire itam voilà bu ñu demee ba ci ay quart de finale demi finale ak finale yooyu noo def di nga dal ci équipe yu mag yi loolu moom lu mënta ñàkk la waaye loolu yëpp amul solo nañu concentré ci li nga xam ne ñun am nañu ko li nga xam ne na moom la ñu war a yokk ñu liggéey ci ngir yokk suñu xarañte loolu moo ëpp solo waaye nag du ñu bàyyi xel ci équipe yu mag yi ndax mënoo leen moytu te kaam bi sax bu ñuy bàyyi xel équipe bu ndaw da cee amatul équipe yi fi nekk yëpp ay équipe yu mag la ñu te loolu nag lu wér la ndax équipe yi nga xam ne ñoom lañ doon tuddee ay équipe yu mag ndax ay tur ci mel ni ay Algérie ak ñi mel ni ñoom fi ni ne nii kick nañ leen out of the competition bokkatuñu dañu leen doon nag bu ñuy bàyyi xel ay équipe yu ndaw la doon voilà bu ngeen bàyyi xel ñii di waa Cap Vert mu ngi defi jaloore te mën nañu jàpp na ci équipe bi ndaw yi lañ ko doon xoolee ku ci mel ni Guinée équatoriale na ko noonu moo tax Pape Gueye nee na équipe bu ndaw amatul kenn mënatu leen moytu bu fekkee bëgg nga gañe dara ci compétition bu mel ni CAN ki nga xam ne mooy Alassane Ndao jogee na ci club ba mu nekkoon di Istanbul Sport dal dinay signé nañu ci club bi nga xam ne mooy Konya Sport ba tey dafay des ci li nga xamante ne mooy Super League bu Turquie moom nag ko am xarañte la na ci club bi di Trabzonspor voilà jaar tam ci club bi ñuy wax Fatih Karagümrük ci ay jamono moom nag nekkoon na fële sax ci Arabie Saoudite ci équipe bi nga xamante mooy Al Ahli bi nga xam ne jamono bii foofu la Edouard Mendy nekk voilà waaye nag jamono bii dafa dellu signé voilà kii di Alassane am na xarañte nag ku mën a la voilà jamono bii comme dafay jàppale équipe boobu nga xam ne nee nañu avant date ci compétition bi voilà te seen yéene mooy daal des ci li nga xamante mooy championnat bi kii di Alassane kon daal dina fay signé kon mbir dafay jógee Liverpool ba saison bi jeexee gannaaw bi nga xamee ne kat na fa lu toll ci juróom-ñeent ci ay at am na xarañte nag ci li muy def ndax kat bu ñuy bàyyi xel moom moo dekkal Liverpool gi nga xam ne jàppoon nañ ne deewoon na. Liverpool toog na fi at yoo xamante ni maanaam dem Ligue des Champions sax problème la la woon ci moom Klopp nag bi mu ñëwee ak léegi mën nañoo wax ne gagné nañ fi sax Ligue des Champions gagné nañ fi li nga xamante ni mooy championnat bi nga xam ne Liverpool toogoon na lu toll ci ñeent fukki at na nañu yëmu ko gañewul gañe na fi ay coupe lu ne def na ko fi back to back final Champions League maanaam final ko ren finalu ko déban loolu def na ko fi ak génération ñoom Sadio Mané xarañte googu nga xam ne def na ko fa nag fi mu nii tax na voilà jamono bi mel na ni waxtu bi jot na ngir mu daal di wàcc juróom-ñeenti at def na ko fa mu ngi jàpp ne daal jamono bi dafa sonn loolu la daal di xamle moom kii di Klopp nee na dafa war a noppalu ji te kenn du ko dégg fenn ci at bii di ñëw maanaam fileeg déwén ñu naan équipe bi jël na ko moo xam club la wala ab sélection mu ne moom loolu xalaatu ko dafay dem noppalu ji waaye nag laaj nañ ko lu jëm ci ëllëg ndax moom bés mën na ñëw ba mu dellu siwaat foofu la ci Angleterre maanaam jëlaat foofu beneen équipe ne daf koy tàggat mu ne loolu moom du mos a am kenn du ko mos a dégg ci lu nu mel mu ñëwaat Angleterre naan dafay tàggat beneen équipe mu ne loolu du am mukk ndax kat bu fekkonte woon ne day jamono dox na àdduna naqari si moom ba nga xam ne moom amatul sax lu mu lekk mu ne su boobaay du tax mu def ko de ñëw ne maanaam ci Angleterre di entraîner beneen club bu Liverpool mu ne loolu moom xalaatu ko kon jeex na. lii yëpp Klopp daal dina koy gaar laaj nañ ko tam ci décision bi nga xam ne jël nga ko man nga ci dellu ginnaaw ndax kat gisoon nañ ku ci mel ni sa Alex Ferguson daal dina koy def ak ñit waa Manchester United ndax kat jëloon na décision ne dafay bàyyi dem ba jëmi jamono mu daal di delluwaat ginnaaw ci mbir moomule mooy loolu moom xalaatu ko ndax moom jël na décision ba noppi te gisul lu koy tax a dellu ginnaaw ndax dafa def li ñuy tuddee out of energy voilà kon dafa soxla ngir dem noppalu ji moom kii di Jurgen Klopp défenseur am bi nga xamante ne mooy Virgil van Dijk moom nag jamono bi jàpp nañ ne bokk na ci défenseur yi gën a am taxawaay ci championnat bu Angleterre ci saison ren bile ndax amul kenn ku jaar ci kaw maanaam kenn dribblé wu ko bi ñuy tàmbalee saison bi ak léegi loolu tam jàng nañ ko ci taskati xibaar yi moom nag am na ci ñoo xam ne daan nañu ko critiquer ci at yi weesu ci toj-toj yi mu doon faral def ak i njumte voilà te loolu li ko ko yóbbee du dara lu dul maanaam overconfidence moom ki nga xamante ne mooy Virgil van Dijk waaye ren ji moom nee nañu mu ngi ci bu baax a baax xanaa kay léeg-léeg ay blessure ak yi ci aju moo koy gàllankoor waaye amul ci kenn koo xam ne mën na la wax na jaar na ci kawam dribble ko voilà moom kii di van Dijk dana loolu nag dinañu wax ci transfert ak ki nga xamante ni mooy Karim Benzema bi nga xam ne dañu doon laam-laamee ne dafay delluwaat ca Real Madrid tey ji Carlo Ancelotti jeexal na coow loolu le nee na Karim Benzema moom ñëwam ci Real Madrid mu ne loolu ay waxi kese la ndax kat moom waxtaan ak njiiti club bi informé wu ñu ko waxuñ ko lenn lu jëm ci ne Benzema dafay dellu soit mu ne kon loolu amut ndax bu amoon moom dina ko yëg kon Benzema ba tey dafay des ci Al Ittihad wala mu dem feneen donte ne ngi laam-laamee ne mën nañu ko able voilà waaye Real Madrid moom bokkul ci option yi loolu kon fi ne mbir la moo xam ne daal dinay leer ki nga xamante ne mooy Sayuncu daal dinay dem foofu la ca Fenerbahçe transfert la boo xam ne sotti na moom Atlético de Madrid ñoo ko daal di able moom ancien défenseur Leicester City bi le voilà dina dem foofu la daal di amat visite di signé ci waxtu yi ñu bu dee Zinedine Zidane moom ñii di waa Algérie ñoo ko bëgg a appoint mu dal di wuutu ki nga xam ne mooy Jamel Belmadi xam ngeen ne Belmadi dafa tekki ndomba tànkam ci bés yi ñu weesu gannaaw bi ñu éliminé ñii di waa Algérie waaye nag kii di Zinedine Zidane la gaa bëgg a indi foofu de Zidane nag ab français la waaye ay maamam waa Algérie lañu mën nañu jàpp ne bu fa demee dellu ci ay mbokkam waaye nag na nañu dey li nga xamante ne mooy cong gu njëkk gi moom daf ko dal di dinaay maanaam daf leen jox ngànt moom kii di Zinedine voilà bëggul dem foofule waaye nag nee nañu waxtaan bi muy continuer ndax Algérie ñu ngi yokk seeni offre ak di defaraat seeni projet ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaari Zidane itam ñu ngi koy pousse ngir mu jël li nga xam ne mooy liggéey bi voilà gars daal ñu ngi continuer nekk en contact ak moom kon amaana bu dee am na leneen lu ci bees dinañ ci dellu si waat waaye daal li nga xamante ne nee nañu mooy waxtaan yu njëkk yi moom Zidane daf ci joxe ngànt waaye gars yi bàyyiwuñ ñu ngi wéy ba tey dégg nga maam di gëm ne war nañu ko mën a indi foofulee désert bi mooy tàggat équipe bi di Brighton moom nag dal nañ koy laaj lu jëm ci joronko la bi nga xam ne dafay dégg maam jógee ca Liverpool ndax moom war na ko mën a wuutu waaye li mu xamle mooy moom daal fi mu ne nii bàyyiwul xel mukk maanaam daan dafay dem ci beneen club ci jamono bi li mu gëm daal mooy dal di dégg maam wu ci équipe am boobu la di Brighton ba saison bi dal di jeex foofu la yem boo xool nag ba saison bi jeexee ndax dina fa dem wala dina dem feneen ba saison bi la wax te nag li tax gars di ko xalaat mooy moom xarañte bi nga xam ne am na ko ba Pep Guardiola sax nangul ko ko voilà waxoon fi ne moom entraîneur la boo xam ne dafay football ku am xarañte la te gëm na ne sax bés moom mën na ko wuutu foofu la ca Manchester City voilà waaye nag moom li mu daal di xamle mooy jamono bi moom mënul am benn xibaar bu mu war a mën a joxe ci ne dafay dem foofu la ci Liverpool samp ndëndam ngir wuutu ki nga xam ne mooy Jurgen Klopp ki nga xamante ni mooy Erik ten moom joxe na xibaar ci ne Manchester United du ñu signé benn joueur ci janvier bi la ndax kat li nga xamante mooy fair play financier bi mayut leen ko ndax ka amuñu li nga xamante ne mooy espace maanaam bu ñu signé benn joueur amuñu fenn fu ñu ko dugal voilà maanaam mel na yëfi daa fees moo tax nee na ñoom la am fi mu nii loolu la ñuy yóbbu mu ne bu fekkente ne am nañu jafe-jafe ci wàllum attaquant mooy a jouer ci côté noonu la mën a jouer comme attaquant de pointe en tout cas fu ñu ci toll rek dinañ defi pexe voilà mën a waye dal manam gis nañu ne ki de Martial dina tok ay semaine yo xamantene du football ci ndax gañu gañu bi nga xamne am na ak operation bi waye lolou tekki wona dina jëm signé benen joueur li ñu am lolou lañuy utiliser mom ki di euh, Ten Hag mo dal di garal kàddu yu mel. am na mooy Walid Regragui moom nag daal dinañu teggi daan yi nga xamante ñi di wa kaf tego nañu ko ci kawam gannaaw appel bi nga xamante ñi di wa Maroc defoon nañu ko legi moom dina jàppandi gir mu wara mëna tew ci match yi nga xamne war nañu ko am wala ci bisi ñu dekkmal ci huitième de finale moy seen digganteeg Afrique du Sud ndax kat nee nañu de gannaaw bi ñuy defee li nga xam ne mooy appel indi li nga xam ne mooy seeni i ñu dellu ko moom itam moom kii di Waly Rick Dag ci jëmi boppam voilà mu dal di teg li nga xamante mooy ay yu leer ci loolu nag ci la ñu jàngat mbir yi jàpp na daal maanaam sanction bi dañu koy dal di tegoon nañu ko nag lu toll ci ñeent match yoo xamante ni war na ko wuute bokk na ci ñaar yi nga xamante ni source lay doon benn moom dèjà ne moom wuute na ko ndax xam ngeen match bi Maroc mujjee joué moom teewul woon voilà léegi nag gis nañu nekkoon dina mën a teew ci match bi nga xam ne war nañu ko am de finale yi gannaaw bi ñu teggee daan yooyu lay the best sport news channel.